Mayonnaise Chef Aïda, la référence. Yay Chef. Puis parcours alimentaire, des idées, du choix. Les poulets fumés attissent à la découverte d'un concentré de saveurs. Livre Cuisine, la cuisine autrement. Donnez une nouvelle vie à votre intérieur. Mini Parcours Alimentaire, des idées, du choix. bëgg Aïdi Aïda ma bëgg chef Aïda mayo chef Aïda si ya mba si jën moom ni mu non, non. É Chef!

leen mu nek moutarde boo xamante ne macha allah léegi mois de ramadan bi wa chef Aïda ñu ñëwaat indil mako ko sous différents formats amna format bu ndaw bi parce que mom la leen indiloon moy bu 250 ml bi am 500 ml amna 1000 ml 1000 ml bi mo nek ni mom la présenté tay ma fas ci cee togg ci mois de ramadan bi plat yu muccu ayib. de sama kër eh, eh eh bii waañ bu béy lan la. <laughs> Eh, waaye li lan la ni xam nga lu ma doon waaj def. Ah. wax sama ay euh, téléspectateur que ren damaa am benn gan. waaw ah, voilà danga maa woor sil daal ci biir kër gi. maa ngi nii <laughs> nee naa saraax ci biir kër gi te caaxaan dootuma fi génne. ah loolu leer na. xanaa neex na. gis ngeen ndeye ngi nii moo ma nar accompagner nag durant tout le mois de ramadan man ak moom ci biir kër gi. Mm-hmm. nee na dafay ñëw fii lay woorsee. Mm-hmm. fi ngay korité wala. yii loo bëgg ma defee ko. boo bëggee sama xaar ba tabaski ba léegi xen togg bi dañ koy awantoo tey ma aye suba nga aye ñoo pareel rek ah pareel rek maa ngi fi mu toll nii taxaw naa foo ma woo ma wuyu la léegi nag gis nga ndey maa ngi nii macha ya. allah voilà dressé naa sama sama sama sama table teg sama ay légumes voilà salade César laa la laa la bëgg a defaral tey salade César waaw waaye loolu moom mooy xetas lan salade César xam nga fi man su may togg damay mhm. bëgg di togg plat yoo xamante ne

amna naa fi euh, du lait crème fraîche. lépp yëpp ci lay dem lépp ci biir salade bi lay dem. Oh, yow yow seetaan ma rek. waaw lii parmesan la. lii parmesan. ah kii ne bu ma réeral bu ma gëlëmal lu loolu. parmesan benn espèce de fromage la. gis nga poivre baa ngi nii ak sel bi. waaw waañ baa ngi nii voilà laan ba ma ko gisee laa xam ne waañ bi nar naa waaj. <laughs> ñoom rek fii du yomb. Mhm. huile lañ ma jox jox nañ ma mayonnaise. joxaat ma moutarde lële crouton la. crouton benn euh, comme pain de mie xam nga pain de mie. xam naa loolu crouton bee ma réeral. yooyu yëpp après nday su may togg dinaa la ko gën a dinaa la gën a faram fàcce kon baax na quoi kon baax na voilà salade bi nag mhm. accompagnement wam benn sauce la mhm. sauce César sauce César boobu nag su ma koy defar moo tax may soxla meew soxla crème fraîche dinaa soxla moutarde bi dinaa soxla mayo bi mhm. ak euh, sel poivre ak parmesan en poudre péri daal narul yomb xam nga lu ñuy def mel ni espagnol ngay làkk hmm. oh, xaw ma ci dara xam nga nu may def damay yëkkati euh, ndugg yi indi la nii ma jël man sama wal ma commencé tracer fi yow nga commencé jël benen bool bi. yi tay mom xamna César dina kontaan ci man. ma du César tay du wax dara. xolal ni ma daggatee tomate. Eh, dag yi am na maanaam. yee xoolal limon bi maa ñëw rek. bob bi nga dindi ni gis nga lool pour après nga xam comme jus bi lañuy soxla. dina gëna neex a pressé. day kontaan na ci yow léegi nak man tamit ciselé naa sama salade ba pare. salade César bi. <laughs> César. Mhm. maa ngi nii haché H&M, euh, naa persil bi daggate naa aussi crouton bi. crouton bi mooy mburu bi moom laa mënta muñ. crouton turam bii. waaw daggate naa kon mburu bi kon. léegi dañuy def benn file d'huile chef Aïda mu baax male. ak ma kaa wóolu. <laughs> lii rek voilà huile bu baax bi. huile de bu wóor bi. léegi damay ñëw euh, sauté blanc de poulet bi. rek laay def. ma def euh, blanc de poulet bi.

xale naa de la mel ni man. waaw kay sa dagat yi sa tranche yi rafet na. bégal na la. oui kontaan naa man tamit pare na saf euh, crouton bi gis nga couleur bi muy joxe. waaye crouton bi nga tegoon nii moo mel nii. moo mel nii. mi ngi mel ni akara de. ak ah. déggal li est-ce que tamit ça ne se rapproche pas de akara xaw na lu roog moom. dafay croustillant. Oh, laala macha allah jëla boobu. déggal li hmm. gis nga. Hmm. léegi loolu boo ko mélangé ci salade bi doo kontaan. damay kontaan voilà. léegi sauce César bi rek

la soupe voilà ma le euh, miel. ci sauce bi la jëm. tu sauce bi la jëm. ci ah. ma def une cuillère à soupe. le euh, parmesan bi ma la wax de bi la jaaxaloon bi. waaw vais ngi nii dama ko râpé léegi yeneen je vais découper en en en lamelles. Mhm. dem ci salade bi mais bii ci sauce bi la sauce. soos bi nar naa am jikko de. ci doy waar la nar <laughs> te neex. laaj moom dañ ciy dem à volonté rek. mais bon ma def ñaari cuillère à café. ndax mooy relever goût bi. laaj daa baax ci toog xaaral ma remuer. lu nekk lu nekk ak ki mën. ma. chef ay daa ko mën. César mii de yaa chef. xaaral ma jëlaat tuuti crème fraîche dolli. macha allah gis nga. ëpp na nee na dañuy terminer par nag sa jus de uhum. uhum. citron bi. waaw. pressé nga ko ba mu baax. xam nga ne salade bi dafa gaaw. suñu paree nii xam nga lu des. dañuy uhum. dressé. kase pare ca. réserver suñu salade. ma ñëw defaral la sa dessert ay daal di def sel ak poivre rek mu daal di jeex. jeex def benn pincée de sel defaat beneen pincée de poivre. rek mu jeex rek mu jeex. donc je remue une dernière fois nga naan soos ay soble lu ne laa ko teg nag. mais daf ciy baax sax parce que chaque jour soos soble moom xam nga mënuñu cee dëkk. nit mm-hmm. la <laughs> ay soos man de soble man pour man yaa ngay dëbb say nokkas riij sa soble. déedéet soos yee que bëri yii dafay baax ñu sax ñuy génn ci routine bi. Hmm. voilà boo bëggee jooy dëgg da ngay tooñ ku la mën yaa ma mën ci César ba <laughs> lii. Hmm. est-ce que chef Aïda mënul ci César tamit. <laughs> dessertu tey bi nag euh, millefeuille laa leen indil mille millefeuille à la crème alors mille millefeuille à la crème bi tamit euh, c'est facile à faire dinaa soxla pâte à feuilleter dinaa soxla des œufs dinaa soxla aussi euh, lii poudre à chaud la tudd dinaa soxla crème fraîche dinaa soxla du lait dinaa soxla du beurre mais aussi dinaa le sucre blanc ou le gourmet bi nga xamante ni wa waa Uniparco alimentaire ni au indil donc format yaa ngi nii am bu 25 grammes bi bi bu 175 grammes bi la moom laay utiliser aussi arôme le gourmet arôme vanille le gourmet bi nga xamante ne ni. tamit waa Uniparco alimentaire ni au indil indil nañ ma nag euh, saveur yu bëri vanille bi moom la sur le pour defar suñu feuilles à la crème. Pour préparer la crème des mille-feuilles à la crème, on commence par mettre la casserole au feu. On verse le lait et l'essence vanille. Dans un saladier, mettre 3 jaunes d'œufs. Ajouter la moitié de paquet de sucre vanillé uniparco alimentaire. Battre le tout. Retirer la casserole du feu. Verser un demi-bol de poudre à chaud dans le bol des œufs. Quand le lait est porté à ébullition, on ajoute la moitié et on fouette. Puis, renverser le tout sur le feu et fouetter. Le sortir du feu et mettre un peu de beurre. Fouetter encore et mettre le tout au frais. Dans une batteuse électrique, faire monter la crème fraîche en chantilly et dans une plaque, Allons au four. Étaler du papier sulfurisé plus la pâte à feuilleter et procéder au dressage. Mmh, léegi loo gis ci ci ci César mi. hey César lii wax tax ñu naa rendre à César ce qui appartient à César lii maa ngi koy doogu këpp. Mm. waaye lii la na sama xarit bi tamit kenn demul mu des. loolu lépp César la ak chef Aïda. sama lu may def man may mm-hmm. jël tuuti mayo teg ci côté bi defal la ci côté bi ngay déguster sa salaat César ëpp na. di boole ak sa mayo. non am na guu man guu bi mosuma ko gis. Mm. delloo nañ César de macha allah. te xoolal niinul deful dara. macha allah moutarde bi nag. ci sauce César bi la. Mhm. xam nga defaral la ci mayo bi. léegi nag doo fi gan arrêté ah, ah. bëgguma yeewu bëy. <laughs> non doo yeewu bëy. <laughs> fii lépp lu ma fi togg rek yaa ko moom xam nga nag maa ganesi. macha allah nit moom bu la ganesee. Mhm. gan ganaleel. neex na yomb na mooy loolu daal te amul dépense bu bari man loolu ma ci mhm. jaaxal. origine plat bi sax nag loolu la ndax ki créé plat bi. Mhm. restaurant la yoroon. légui muy togu am clientèle bu bëri. Mhm. légui comme que clients yi bëri nañ mom dafa muy muy muy servir ba amatul euh, assez de de d'ingrédients ci ci ci stogam. Mhm. ci noonu la créer salade César xam nga salade bi bo gisee. on a mixé un peu de tout en fait. amna euh, croûte bi mburu la fromage poulet. servir ah. ko donc idée wu salade César foofu la jógee ni la jugé maa ngi doog comprendre voilà donc ñuy mu muy wone nekk ne tey mm-hmm. aajowul ngay ngay ngay ndugg yenn ndugg yu extra yi di abuser ci dépense bi mm-hmm. pour mun togg lu neex xolal on n'a pas on n'a pas beaucoup de dépensé de fi li fi nek yeb di nga koy lekk sa di dina ubbeeku consistant na copier na di mm-hmm. sou té voilà quoi do fi nek di sonna sa jëkkër ci ay ay hmm. dépenses ah, ah, yu dul jeex man ma ba jigen buy tek fitna gor man mom loolu mënuma koo supporter dañu indi waan maami góor lu mu la jox rek nga toggal ko ba mu neex taajal ko. Hmm. man daal loolu dama koy sentir te lii dinaa ko def. waaw yu neex yaa ngi fi de. macha allah yu neex yaa ngi fi muy ñuy togg fii muy ñuy togg bitim réew bu ci nekk mën nga ko togg. sans hmm. pour autant nga nga dépenser ndax fii am naa si am nga fromage ñam nga fromage bi. yow fromage moom laa njëkk a ñam foo ne. man ak fromage rek. dara graaw. macha allah dara dara graaw. macha allah lii daal jàmm rek nga ci ñëwati encore. Mm-hmm. Cheikh Aïda ñëwati encore gën a yombal affaire yi. ndax ay ndimbal jaboot la fi indi fi mu nekk nii pot boo soxla am na fi donc tey loo am rek loo mënti am rek. Mm-hmm. di nga togg ba mu neex di nga lekk rapport qualité prix bu doy waar. macha allah ñëpp dinañ lek. ba kii kat bégal na ñëpp César nii daal yaa ngi fi yàgg. xam mm-hmm. anam anam mi ngi dund. Ah, <laughs> macha allah saf Mayonnaise Chef Aïda, la référence. Yay Chef. Mini-parcours alimentaire, des idées, du choix. Les poulets fumés attissent à la découverte d'un concentré de saveurs. Livre Cuisine, la cuisine autrement. Donnez une nouvelle vie à votre intérieur. ID Aïda ID ID. Aïda, on t'aime, on t'aime. ID Aïda, on t'aime, chef Aïda. Maillon, chef Aïda, tu l'as